information yi ñu mën a jox euh, ci gox ak gox goxaan ya ñu ne euh, ci euh, banlieue bi surtout la njëkkee dem préfecture bu pikin fekk fa ki nga xam ne ni moo di Serigne Saliou sekk li ko sabab mooy dogal yi nga xam ni préfet ba jël na ko ci am yi mu tere ginnaaw bi àddina bi yëpp sooboo xeex ngir daan li nga xamante ni moo di Covid 19 wala coronavirus. alors Serigne Saliou sekk ginnaaw bi ñu la nuyoo ba jox la sa wàccuwaay foofee dañ lay fekk ca buntu préfecture bu pikin maa lay fay euh, alaaji Baye Cheikh di nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média rawatina ñi nga xam si saa su waxtu yu jotee rek ñu ngi topp yeewu leen euh, di euh, teewlu information yu jëm ci Covid 19 bi di coronavirus bi rawatina. ci àdduna wërngal këpp dendu Afrique ba ci fii nii ci réewum Sénégal tey ñoo ngi fii nii ci buntu préfecture bu euh, pikin li ko waral nag moo di ay décision yoo xam si moom mi euh, préfet bi daal dina koy jël jëmale ko ci euh, dogal yoo xam si njiitu réew mi di président Macky sàll jël na ko gannaaw bi ñu nemmeekoo ni Covid 19 bi di coronavirus bi mi ngi woy di am ay kaa ba tey rawatina ay kaa communautaire nekk ay cas yoo xam si. maanaam ñi mu dal duñu xam kan moo leen ko wàll loolu nag moo tax ba préfet bi moom ci boppam moo solal boppam dàllam dem ba ci euh, plage yi rawatina bu Mali bu def ab taxaw seetlu xool nit ñi nga xam si jàpp nañ leen fa nag euh, def na ko ñetti yoon maanaam jàpp am na ñun jàpp euh, àllarba mu daal di wax ñu bàyyi leen am ñun jàpp tamit alxames ñu bàyyi leen mais nag ñun jàpp aljuma toll kon ci fukk ak juróom-ñeenti ndaw dafa daal di sàkku ngir ñu jébbal leen procureur ba kon euh, démb ci euh, talaata ji daal na leen di jébbal euh, procureur ñu waroon leen a déglu ba xam ñoom tere yi nga xam si dañ ko def lan moo tax kon ñu koy daal di jéggi maanaam di continuer di dem ci plage yi ak yeneen i dogal yoo xam si préfet bi namm na ko jël dem na ba ci marché yi nekk fii nii ci diwaanu Géejawaay ba ci Pikine ñu xool nan la ñuy def ba wàññi demlante ak dikkalante bi ak mbooloo mi nga xam si ba tey ñu ngi wéy di dëgër bopp di fa di fa dem loolu nag nekk ay dogal yoo xam si dogal yu am solo la ndax nag moom ci kàddoom moom mi nga xam si moo di euh, Chérif Blondin njaay nekk préfet bi fii nii euh, ci gox bi li mu daal di xam ne moo di ñi ba tey dañuy wéy di dëgër bopp te tamit euh, nee na dafa mel ni pareegunu pour daan li nga xam si moo di coronavirus ndax nag cas communautaire yi mi ngi wéy di am ci banlieue bi rawatina fii nii ci Géejawaay te li koy andi boolo bokk na ci mbooloo yu bëree bëri yi dajaloo moo xam ci marché yi moo xam ci place publique yi moo xam ci géej gi waaye géej gi moom daanaka gannaaw ñun tukki nemmeeku bañ fa amal nit commencé nañ ko jëfe ndax démb ci ngoon bi ñu fa demee alaaji bàyyi gis nañ ni kenn nekkatu fa ay policiers rek lañ fay gis ak ay takk der ñu ñëw di def ay ah, taxaw seen loolu nag nekk ay dogal yoo xam si ñu bëree bëri ci askan wi rafetlu nañ ko te it nee nañ dinañ ci ànd ak préfet bi képp koo xam si tamit gisati nañ ko muy dajaloo moo xam ci koñ wala ci marché ba ci place yi dinañ woo police wala ñu wootee ci fii nii ci préfecture bi ñu mën leen a daal di euh, dem tas leen foofee noonu loolu nekk kon ay dogal yoo xam si loolu moo waral solos ñu ñëw fii nii ci préfecture bi euh, deful leen fi taxaw seetlu ak dogal boo xam si yaakaar naa ni dina andi dina jur lu baax dina jur lu baax ci xeex coronavirus bi fii nii ci banlieue bu euh, Ndakaaru kon euh, Baye Cheikh xam naa ni loolu moo waraloon kon tey ji ñu teewaat fii Serigne Saliou Seck ak Ousmane euh, lépp ci daan coronavirus ak dogal yu am solo yoo xam si préfet bi jëlaat na ko waaye tamit xam naa ni dina dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ci euh, beneen jotaay muy yeneen i mbir yoo xam si maire yi ñu ngi koy nam ma jël muy dimbali nit ñi ci gants ba ci wala sax ay masque masque de protection jëmale ko ci coronavirus bi nga xam si keroog ñu ngi dégg docteur Aloyse Diouf wax ni boo moytu ci jamono yi ni jëm dina dem ba nekk loo xam ni ñëpp boo koy takk dinañ àgg foofu noonu maire dinañ ci dimbale ni ñi ci dimbale ni di nag mooy wàññi leen njëkki ba ba mu gën a a yomb waaye tamit téyeer yi di mën a defar ay euh, masque yoo xam si ñu ko defee euh, buñ ko takkee maanaam euh, dinañu mën a protéger ci yu bëree bëree bëri nekk ay dogal yu bëree bari yoo xam si daal xam naa ni euh, bu ci boolee dogal yi nga xam si euh, préfet bu géejawaay bi ak Pikine jël na ko fi nga xam si euh, moo di ayubés bi ñu génn gëm nañ ni mbir mi dina dellu gannaaw bu baax a baax rawatina cas communautaire yi nga xam ñu ngi koy nemmeeku fii nii ci banlieue bu Ndakaar Serigne Saliou Seck Ousmane ñoo fi nekkoon kon Alaaji Baye Cheikh dañ lay bàyyi kon nga wëyal voilà euh, jërëjëf Serigne Saliou sekk ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi ak noonee euh, ngeen di defee euh, tour banlieue bu dakaar ngir di indi ay xibaar yoo xam ni mën nañoo soxal ci feebar bi la nga xam ni moo di Covid 19 li Chérif Dia wax sànq mooy dëgg lu fi ay di jàmbat donc mobilisation itam seetlu nañu ko ci rédaction bu King FM première radio digitale bu Sénégal nga xam ni actuellement dañoo wàññi liggéey bi ci antenne bi waaye lu ci ëpp dañu leen koy jagleel suba gi ci télévision Média donc Serigne Saliou Seck noonee ñu ko fekkee foofee nga xamee ni mooy buntu préfecture bu euh, Pikine euh, daañu euh, duggaat ci banlieue bi dem boori Géejawaay rawatina rawatina fi nga xam ne ni moo hôpital Dalal